live bi yéeg ñu partagé ko bu baax ma doog a mën a commencé ah am naa contentement ci yéen di am contentement ci ñiy seetaan di leen bëggee bu baax a baax fu waay mën a nekk ci add bi ma lay ziar mais tey bëgg naa kattu lëfal nday ñu bëri ñu bëri bëgg naa doxaan seen day tey incha allahu rabbi may leen ma rek ma jeexal si bi sama yaram mën a tàng ak sama mbagg yi nii ba mën a tàng gay maa ngi leen di nuyu di leen ziyaare yéen ñi fi nekk ñëpp di leen bëggee bu baax nuyoo woon naa damay nuyoo waat gay sama laayu fu tey bii xam nga lan moo ko waral dama bëgg a wax ci ñi nga xamante si nii dama dama bëgg a wax ci ñi nga xamante si nii ñoom ñoo jege Macky Sall président Macky sàll mi ngi liggéey de jàmbaar la mais dafa am ñu ko jege ñoo xamante ni liggéeyul pourquoi nekk ak Macky Sall jël xaalisu réew mi di ko cagatoo pourquoi nekk ak Macky Sall jël xaalisu réew mi di ci katt ay caga pour lan xaalisu réew mi ngi di kattee caga yi pour lan nday asu sall bi may ma nday asu sàll gis ngeen ko gis ngeen nday asu tàll nday asu sàll gis ngeen ko bu baax ay ministre ñoom ñoo koy kat di ko jox xaalis bu bari léegi nday asu sàll xeeb na 2S liggéeyatul defatul sarab ndeyam société la yor léegi fan la jëlee xaalis bi jëlewu ko fenn fu dul ministre yi ak ay directeur ak ay transitaires yoo xam ne nii ñooy ànd ak Macky Sall xaalisu nguur bi ni jël di ci katt caga yi dafa am ñenn ci ministre yi tekkiwul sarab ndeyam makki Sall dafa war a raxas gouvernement bi raxas ko am ministre yu mu génnee pourquoi di jël xaalis bi di ko jox ay ay ay ay ay caga yu mel nii di jël xaalisu réew mi di ci katt ay caga ay fay naara ay faa ay dara ay duudu fee vidéo ay ay ay ay jaw kecob ah ay ay ay ñoom ñëpp nga leen di jël di leen jox xaalis bu bëri pour lan di leen yóbbu Dubaï di leen yóbbu Qatar di leen yóbbu fu ne man njariñ la am loolu ñi nga xamante si ñoom ñooy activiste di jàppale ki nga xam ne moom mooy président Macky Sall comme ku ci mel ne man Khaliphone Sall keneen ak keneen nekk ci internet bi man sama ñaata paasu eh, eh, TikTok la tëj bëri na tëj na lu mat cinq man instant bi sama paasu TikTok yi bu fi nekkoon instant bii nii weesu naa weesu naa ab millions ne lépp dama koo ñàkk ci ci ci mag mais xaalis bi ñu jox mbër yi fecckat yi tëggkat yi amul njariñ kenn du ci prononcé daan ne daan ne Macky Sall moo war a jël réew mi wala Macky day toog déedéet jël xaalisu gouvernement bi di ko fowee ñu leen di jox xaalis Macky Sall di leen jox ay marché pour ngeen koy liggéeyal ngeen ciy katt ay caga fu ngeen ko teg ay ndey asu Sall yëpp ay ministre ñoo leen di kat ak ay transitaire ñi ñëpp ay ñoom yes nii yëpp dañ leen di kat yéen a dégg kii muy wax déedéet kii di wax parce que ay ministre ñoo ko képp ci ruq di ko kat ñii ñëpp Qatar lañ leen yóbbu di leen kat ay ñoom yes ni ñii ñëpp Qatar la leen ministre yi doon katte ci xaalisu gouvernement bi yes ni mi ay ministre ay ministre la koy du wax waaw fay naara ay ministre leen doon kat Qatar faa ay dara ñoom ñëpp ay ay ministre leen yóbbu di leen kat ñu ngi nii ana faa ay dara faa ay dara ngi ni ñii ñëpp ay ministre leen du katt kadaar léegi nag influenceurs yi nga xamante si nii moom la ñu jox xaalis bi influenceurs yooyu tey jii ah influenceurs yooyu tey jii bu dee wax ci Macky Sall ñooy génn di xalabaat Macky Sall di ko yekk lu ñaaw kon jox bi ni jox influenceurs yi nii amul njariñ parce que ñii amulun njariñ euh, askan bi amulun njariñ Macky Sall amulun ko njariñ ministres yi nag dinaa ñëw su ma ñëwaatee moom benn par benn lay tudd seen tur dafa am ñoo xamante ni danoo comploter Macky Sall daan déggoog Ousmane Sonko di yëkkati xaalis bu bëri di ko jaalare ci Cheikh Thiam yaa ngi dégg ji bi moo doon récupérer xaalis bi di ko jox Ousmane Sonko ndax yaakaaroon na ne nguuru Macky Sall day daanu moo tax ñuy comploter Macky Sall te jege ko pour jàppale ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko léegi. dafa am ci lu may ñëw parce que liste baa ngi nii mais du ma tuddagum dara euh, damay toog rek di di di déglu parce que am na loo xamante ni bëgguma ko waxati léegi may leen ma ma ñëw. waaw xam nga Ousmane Sonko nee na dañu koo jàpp fekk nañ ci moom xaalis ba jël ko mais waxul som bi ñaata la soixante-dix mille euros lan fekk ci saago Ousmane Sonko soixante-dix mille euro ak dix-sept million francs CFA. déglu leen boobu baax soixante dix mille euro ak dix sept million francs CFA la ñu fekk ci saagu Ousmane Sonko xam nga nee na dañoo jël xaalisam soixante dix mille euros la ak dix sept million francs CFA moom la état bi fekk ci saagu Ousmane Sonko ak benn libéré libéré fiant yi ni diw ci data ak préservatif. yéen a ngi dégg bu baax saagu Ousmane Sonko bi gendarme yi ñu ngi fekk ci biir saag bi soixante-dix mille euros dix-sept millions francs CFA lubrifiant ak préservatif lanu fekk ci biir saagu Ousmane Sonko dafa am ay transitaires yoo xamante si nii Macky Sall da leen a joxoon xaalis bu bëri boole leen ak douane yeeg yooyu yëpp ñu jël xaalis bi di ci katt ay caga di jël ay influenceurs di leen yóbbu fu nekk pour lan bar njariñ lan am xaalis bi ni pasar pasaree fan lan ko teg Macky Sall jàmbaar na day liggéey mais entourage am moo baaxul ñi ko wër ñi ko wër seen intérêt rek ba nu méttee ñoom ñëpp a daw hôtel yi nekk Saly ñoom ñoo fa fees dell Pape Malick Ndour dala ci tane Pape Malick Ndour nga xam ne nii moom même bu dimbaliwul jeunesse bi sax Pape Malick Ndour lu xew moom dina génn ci télé yi défendre Macky Sall Macky Sall dëggal boppam ak Antoine Diome ñi jeunesse ñëpp danoo daw ñiy ànd ak Macky yëpp xeex bi ba méttee danoo daw dem Saly jël fa ay hôtel yóbbu seen famille ban njariñ lan amal Macky Sall ministre yi xaalis bu ñu yor kantee ko caga yi transitaires yi katt caga yi rek la ñuy liggéey jënd nañ booy yëpp yàq nan xaalisu réew mi te ko di ko kattee ay caga ñoom laa bëgg a teppi seen la fan day tey ñoom ñëpp léegi nag gars dafa am ñoo xam ne danoo bokk ci Macky sàll ci Macky Sall la ñu bokk mais dañ daan jël xaalis bu bëri di ko jox kii nga xamante si nii moom mooy Ousmane Sonko parce que danoo yaakaaroon ne nguurug makki sàll day daanu ay transitaires lan ay ay homme d'affaires ak ay ministre Cheikh Thiam bi nga xamante ni moom lan taaloon am Cheikh caam moomu xaalis bi ci la daan jaar bu jaaree ci te mu nekk ci te parking bi nekk ci VDN bi rek Cheikh Thiam xam ngeen ko xaalis bi ci moom la daan jaar bu jaaree ci moom yaa ngi dégg après ki nga xamante si nii moom mooy Jibi Gueye mooy récupérer xaalis bi dem jox ko Ousmane Sonko Jibi Gueye xam ngeen Jibi mooy ki doon woo rek naan ko Jibi ñoo ñëpp ci nguuru Macky Sall lan xam nga ñoon lan moo leen feeñal téléphone Ousmane Sonko yi. nee naa leen téléphone Ousmane Sonko yaa ngi tëj réew mi téléphone Ousmane Sonko yi mi ngi tëj réew mi Ndeye Ndaak ak Cheikh Bara Ndiaye xam ngeen lan lañ leen jàppe parce que dañ doon financé ay nit maanaam nit ñi ñu jàpp te daan taal di yàq ba leen jàppee danoo fekk seen téléphone ay Wave ak i Orange na yoo xamante ni Ndeye Ndaak moo ko doon envoyé ñu gis fa numéro Ndeye Ndaak ak ki nga xam ne moom mooy seex Bara Ndiaye loolu lañ leen jàppe loolu la ñu jàppee Ndeye Ndaak loolu la ñu jàppee ki nga xam ne moom mooy Cheikh Bara Ndiaye jeunes yi ñu jàppoon seen numéro lañ fa gis yoo xamante ni dañ leen daan wéef xaalis ak ay Orange Money Sankara Mbaye doomam ji mu jur Amadou Sall la ko bàyyee la woon Amadou Sall daan ko defal teraanga ju bëri mu dem ba mujj yàgg Amadou Sall tëj bunt yi moo waral muy xala président Macky Sall ak ak jabootam Sankara Mbay ci boppam am na ay grand dame yoo xamante ni ci gouvernement bi la nekk jege jege jege Macky jege Macky Sall ñoom ñoo daan ànd ak ki nga xam ne moom mooy ndey ndaat di def affaire du affaire guwin ay grand dame lan jege Macky Sall nekk ci biir ay affaire guwin lan doon def ak ki nga xam ne moom mooy ndey ndaat may leen ma rek. benn par benn dinaa leeral dossier yépp Macky Sall war ngaa xoolaan sa bopp de waaw Pape Samba Pape Pape Pape kii nu ñu koy waxatee sax Lamine Faye ak Pape Samba Pape Samba mbub ak Lamine fay ku la waxoon ne la da doon bàyyi Ablaye doo ko gëm Macky maanaam li ma la bëgg a wax mooy gis nga xaalis bi ngay yëkkati di ko jox ay di ko jox ay ay ay ay yu tekkiwul sarab ndayam ay fay na ay ministre ñuy jël ay ñoom fay naara ay ñoom nday asu sàll ay ñoom yas ni ay keneen ak keneen di leen katt ci xaalisu gouvernement bi di leen katt ci xaalisu askan bi di leen katt ci xaalis bi nga xam ne population bi ñoo ko moom amul ñu njariñ parce que kenn liggéeyalu ci man mii damay wax ba dee Kaliphone day wax ba dee keneen ak keneen dañuy wax ba dee njariñ bi ñu am ñoom amuñu ko bu méttee ba métti dañuy daw man fii laa toog ñu tëj samay compte te bu ndeetaal kër yi lu ñuy wax ches aadamo ses Kaliphone nantaal fee nantaal lu tax du ne nantaal kër ministre yi parce que dañuy daw ay ragal lan ses Adamo la ñuy wax ndax Adamo rek mooy wax di teppi gémmiñam gi rek wala Kaliphone wala keneen pourtant ñun de dañ laa bëgg rek di la jàppale boo dee jàppale nit ki da koy wax dëgg ñi ngay jox marché yi amuñu njariñ ministre yi liggéey ak Ousmane Sonko nag ñu bari dinaa tudd seen tur léegi léegi nii du ma wax a gunde ndax liste bi dafa war a génn ma du ma wax a gunde ndax min ndax. liste bi dafa war a génn téléphone Ousmane Sonko baa ngi toj réew mi ministre yi jàppale wuñ kenn jàppale wuñ jeunesse bi jàppale wuñ activiste yi déedéet seen bopp rek ak seen intérêt bopp ak katt ay caga yóbbu ay nit du Dubaay di leen tëddee loolu la ministre yi di liggéeyee amuñu benn njariñ ñu bari ñu ngi ci yow mais dañ lay yàqal liggéeyalul la ñi ngay jox marché yi yépp dañuy jël seen xaalis bi di ci katt caga di foowee xaalis bi ñun nag danoo sonn président waaw dafa am ñoo xam ñun moom yow rek lañ bëgg man Macky Sall rek laay àndal du ma ko wax lu ñaaw Macky liggéeykat la jàmbaar la Macky sàll kenn du moom mais ñi nekk ci ginnaaw Macky Sall di ay ministre ñii nekk ay homme d'affaires ñii nekk ay transitaire ñooy ay jaam ñoo tekkiwul sarab ndeyam ñoo munta liggéey liggéey bi leen di makki Sall di sant moom lan mënul def parce que xaalisu Macky Sall bi la ñu jël ak peuple bi askan bi di ci ay jaga bu méttee ba métti dañuy daw hôtel yi nekk Saly ñoom ñoo fa fees dell lu ñuy def Saly daw nëbbu seen njaboot daw dem Saly tëju ci hôtel dëkk bi di tàkk kan mooy génne di wax Pape Malick Ndour leen tane ndax moom mi ngi wax ci télé Antoine Diome mi ngi dëggal boppam Macky ngi wax Adama moo ngi wax Californie ngi wax Cheikh Gadiaga ak ak keneen ñi ngi wax xel mu sell mi ngi wax ana ñu ñoom ñoom ñëpp daw na te pourtant ñoo yor xaalisu réew mi di ko fowe cinquante millions nga jël ko jox ko ay mbër ay mbëri làmb mbër yoo xam ne tekkiwul sarab ndayam amul kenn kuy téye micro toog ci askan bi naan makki damaa bëgg mu am troisième mandat Macky Sall la àndal Macky yore réew mi déedéet seen bopp rek. léegi millions yooyu noonu am na ko gën a mérito ñu nekk ci internet bi di rey seen bopp di wax suba ngoon ñuy taal seeni i kër am na ko tudd nitu dëgg. xoolal nañ ko def palaasam lañ ko fekk si ngeen seew toj ko kan moo koy fay loolu te Macky Sall rek day défendre toj nañ palaasam génne nañ matériel am bagage am yëpp dañ koo toj kan moo koy fay xaalis boobu kenn du ko ko fay parce que yéen ay ànd Macky jàppale wu leen te ñoom ci dimbali Macky Sall lan lan nekk affaire yu katt yooyu moo fi war a jeex activistes yi nekk ci internet bi da nga leen war a dimbali ñi nekk ci internet bi di défendre Macky Sall da leen a war a gees mbëru làmb yi tekkiwul sarab ndayam jëruñu ñoo dimbali parce que amuñu benn importance ay faa ay dara ay fay naara caga yi ngeen di yóbbu Qatar di leen fa katte ay ñoom yes ni amuñu njëriñ parce que pop parce que influenceur yooyu boo liggéey bu dee xalab Macky Sall ñoom ñooy génn di di xalab Macky Sall ñooy saaga Macky Sall kon xaalis bi ngi leen di jox ñoom c'est rien parce que beneen yoon lu mu métti métti peuple bi dana leen ruux ban génn wax lu ñaaw Macky Sall a millions yi ana millions yi jaw këccëg vingt millions jaw Ketchup vingt millions Doudou fait des vidéos vingt millions fay naara xaalis faa ay dara xaalis yes ne xaalis teg si passé leen ñoom ñëpp yóbbu leen Qatar ñu seetaan yi max yi jël leen ay hôtel yu cher ministres yi tëdd leen di leen kat teewul bu génn jotee dañuy wax ñoom dañuy xala président ngeen teg ko fan jour di xeex ndax Macky Sall chaque jour di xeex ndax Macky Sall di daj doone ci makki Sall te mun leen a jàppale ñi nekk ci internet bi te bàyyi ñi nga xam ne tekkiwul saram ndayam Macky Sall ministre yi ngay jox marché yi amul njariñ marché amul njariñ nangoo dem marché nangoo wax ku gën toog ci télé yi dëggal sa bopp ne Macky nga bëgg ba ñu ruux mais marché yi amul njariñ kat cagalan ciy def ci xarit yi ku ci dem marché boo yeggee sa hôtel ngay jël teg fa sa ñaari jeeg wala luyee ay caga teg leen fa di leen kat xaalisu population bi la kattee ay caga ministre yi complot Macky sàll ak tenacité rek lomu defaar yi di complot di liggéey ak Ousmane di jël xaalis bu bari di ko financé Ousmane Sonko yaakaar ne day wàcc yëg nan loolu téléphone Ousmane Sonko bi li ci ne dafa garaaw li nekk ci téléphone Ousmane Sonko bi dafa yéeme di leen jàppale seen i Macky Sall duma kox dara Macky liggéeykat la Macky jàmbaar la nit ku yaru la ku nangoo liggéey la makki Sall moom moom mooy doon sama président moom mais ñi wër Macky Sall entourage am ak ministre yi profité ci Macky Sall nitu intérêt yu katt seen dëjëw nday yu tekkiwul dara tey nag tudd ma mais bu ma ñëwaatee par tur benn par benn laay tudd ay ñoom as nday asu Sall xam nga ne moom tekki na ay ñoom Amina Sow tekki na saram ndayam ñu ko ay société la ñu yor xaalis bu bëri nday asu Sall mii xam nga ne xoolatul 2S dootu fa jaarati anamu kii xam nga ne du taxawati deses xaalis bu bëri la lépp ay ministre ñoo leen ko jox nday ndax passeport diplomatique bu mu am ak oto yu rafet yi ni dawal ay ministre ñoo ko jox di leen kat ay ministre ñoo leen ko jox di leen kat ñoom ñi ñëpp ministre yi leen di kat faa ay daraak fay naaraak yes neeg nday asu sall ak amina saw ak ñëpp ñu nekk ci nguuru Macky Sall gee leen di kat ay politiciens ay ministre ay transitaire l'homme d'affaires ñoo leen di jël di neen kat di leen financé mosu ñoo wax Macky fi nekk wala moo téye réew mi déedéet ñun kay ñoo de dee Macky guddi Macky gon rek te ñun kattuñu kenn dañuy wax te yàlla tax invité wuñ kenn waaw ñoom ñuy tëdd di kat ay waay bu méttee ñu daw dem sali tëdd fa jël seeni otel <laughs> so mais saram day lii Macky jàmbaar la de ñi ko wër kay ñoo dul jàmbaar bu ma ñëwaatee nag tur laay tudd benn par benn suma ñëwaatee damay junj rek tuddaguma kenn mais gis nga su ma Moustapha Ba moom Moustapha Ba jàmbaar la mi ngi liggéey liggéey bu am solo Moustapha Ba moom jàmbaar la mais dafa am ñu bari ñoo xam ne danoo jege Macky Sall nekk ak Macky nekk ci nguur gi tekkiwun fa sarab ndayam dañuy yàqal Macky Sall xaalisu gouvernement bi la ni pasar pasare di ko yàqate di ci katt ay caga di ci jox ay nit ñoo xam ne nii tekkiwun sarab ndayam du yàgg-yàgg ba nu jàppale Macky Sall te lan lan mënal Macky Sall moom laa xamul ñu ci mel ne ay Awa Baldé dañ leen di jox ay 10 millions barki démb rek jox nañ leen ku nekk 10 millions moom ak keneen ak keneen yu may bañ a tudd pour lan fu ñu teg loolu fu loolu ñoom duñ toog mukk ne Macky fi nekk moo yore réew mi Macky day am troisième mandat dëggal seen bopp taxaw ci télé yi ŋàpp seen micro yi ubbi seen data yi wax déedéet ñun ñooy wax man Kaliphone nitu dëgg Cheikh Gadiaga xel mu sell ak keneen ak keneen. te tey jii bu problème amoon dan naan nan nan dem kër aadama nan wër aadama nan jàpp aadama nan jàpp Kaliphone nan wër diw nan wër diw ñun dañ koy def pour Macky Sall mais yéen da ngeen a amulul njariñ léegi nag Macky faaw nga xoolaat sa bopp xoolaat sa entourage ak ñi la wër xoolaat ministre yi ak tenacitaires yi ak ñi ngay jox xaalisu askan bi ñu koy kattee ay caga xool leen amuñu njariñ yow njàmbaar nga liggéeykat nga mais am na ñu la wër ñu bëri du ñuy liggéeykat loolu moom mooy wax ji gestu activiste yi nga gestu leen bu baax activiste yi ak ñiy jàppale Macky Sall te nekk ci internet bi ngeen leen di gestu ñoom ñooy def liggéey bu am solo bi mais du mbëri boo jàppee ne jox cinquante millions ay mbër tajale mbër yi ñuy ñuy foto woo ko tous ak di wëngali taat mooy tax Macky Sall ah, mën a egg fi mu jëm dee mbër yi kenn du ci téye micro. toog dëggal boppam naan salaamaaleykum gaa yi salaamaaleykum ñun Macky Sall la ñu àndal Macky leen bëgg mu jël troisième mandat jëlaat réew mi ndax Macky jig nañu benn mbër du ko def xalaatuñ ko seen àdduna loolu koy man ñun ñu nekk ci internet bee ko ñemee tey pourtant ñoom ngeen di jox xaalis bi ñeente ko fan caga yi ngeen di yóbbu Qatar di leen kat fay naara fa ay dara yes ni Astou Sall ak Amina Sow keneen ak keneen du kenn kuy taxaw ci internet naan salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum man la fay naara man la faa ay dara dama bëgg Macky Sall jëlaat troisième mandat parce que Macky yore réew mi moo ko téye Macky dàq liggéey Sénégal doo ko dégg kon xaalis bi ngeen leen di jox nul na ak kat yi ngi leen di kat xanaa plaisir data ngeen ci am dañuy tax am na ñu ko gën a méritoo xaalis boobu dañuy waxante dëgg fu ko ju amuñu njariñ Faa dara fay naara duudu fee des vidéos jaw këccum mi ngeen doon jox xaalis di leen yóbbu Qatar di leen paasal ci max yi di leen katt ci hôtel yi ñoom tey ñoom ñoo wëlbatiku di xalab Macky Sall population bi bu ñu jógee seen kaw ñoom ñooy génn ku nekk naan bonjour monsieur le président dama bëgg a wax ak yow juste que peuple bi sonn pour ngeen geestu leen parce que nit ñaa ngi dee en fait moo yi baxi na ana xaalis bi ngi leen doon jox sérieux ñoom ñooy saaga Macky Sall tey xaalis boobu sérieux il faut ngeen xoolaat di ngeen di def di xool ñan ngeen di dimbali ak ñan ngeen war a jox seen xaalis man dëgg rek moo ma ñor li may wax nii waxuma ko pour lu neex waa Pastef de non non ñoom ci Dakar seen day laa dëkk xam na ma man waa Pastef ci katt seen day laa dëkk du ma leen may dara yàgg naa toj seen lëfal ndey mais bu dëgg jotee damay taxaw di wax dëgg dëgg rek moom a ñor man dafa am ministre yu nekk ci kaw ay transfert l'homme d'affaires jage Macky sàll bugguñu Macky Sall dañ koy yàqal xaalisu réew mi yëpp kattee nañ ko ay jaga damay xool ndax Karim mi ngi en ligne ma jël ko moom it xam naa dina am lu mu ci sànni